asalaamaaleykum mbokki Grand Dakar ñu ngi leen di nuyu ci turu intercoalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal bu président Abdoulaye Wade ñëw fi tey ci Grand Dakar mbokk yi ñëw dox si tànki jàmm mbokk mbokk yi daanaka ci gàttal kàddu gi na la ñu nam mooy mbalit bu nekk ci assemblée nationale bi seppi mbalit bi sànni mbalit buy jaay ay passeport diplomatique mbalit buy trafiqué ay faux billets de banque mbalit buy dooleel góor jigéen ci assemblée nationale bi mbalit bu noroon toogal askanu Sénégal ci assemblée bi ba fa toogal président Macky Sall tey dama dégg kenn ci ñoom di wax ne ni bés bu nekk député dina fa voté loi pour ñu dindi ay immunité parlementaire xanaa moom dafa fàtte woon wax lu mel noonu ci mbiru passeport diplomatique ak ci mbiru fobie da ak ci mbiru fobie da banque mais moom dégg dañ ko

mbokk ñom tay tey dañuy toog di len di bëgg a gëmloo ne ni que bëss bu ngeen ñu joxe majorité dëkk bi dañ koy bloqué té Macky Sall da naka day dissoudre assemblée wax yoyu ay wax yu daanu sareet la Macky Sall su ngeen joxe majorité fi ak ñaari at yu ci tegu amul lenn lu mu mënal assemblée nationale mënalul assemblée dara dama né mbokk yi. ab baadooloo kenn du ko dénk lépp ab baadooloo kenn du ko jox lépp dama ne Macky Sall na boppam wane ban xeetu doomu aadama la soxor bon iñaan baadooloo ñàkk xol la rek moo tax mbokk daal daanaka na ngeen ko ba 2024 lu ko yàlla may ci pouvoir exécutif nañ ko ko nangul wante dama ne tey majorité bi ngi sa loxo lu koy firndeel mooy élection président Macky Sall li ngi bi ba dem ci élection mairie Macky Sall ba Macky Sall dafa liste ci département Pikine <laughs> Kédougou Mbacké foofu yëpp amuñu woon candidat ci élection mairie moo tax mu wàcc ba 42 pour cent wante Macky Sall xam na ko yorul 25 pour cent ci majorité bi ñuy seen loxo moo tax su ñu jëlee loolu oh, ngeen dénk oh. ñu ko ñu toogal leen ci assemblée nationale incha allah na ngeen ko déggee loolu dund bi moom dina wàññeeku ci dëkk bi dund bi lu ko waral mu cher mooy puukaree bu Macky Sall nekkee ci dëkk ba nga nekk ci di naaw ba nga yor gouvernement wu cinquante ministres ba yor ba nga yor ba nga yor ba nga yor Macky Sall na xam bu mu jëm ak puukaree wante doon suñu poche ku nekk ci puukaree boobu du ko administrer ministère mbokk yi su ngeen ñu dénkee seen majorité dama ne comme Macky Sall nee na moom du yàbbi ci biiru góor jigéen te wax dëgg yàlla góor jigéen boobu mënul bonne Sénégal dama ne assemblée nationale boobu dinañ ci yàpp ñi def ñu góor jigéen ko lijjit ci Sénégal bu fekk boobu mooy licence de mooy géej bu ma ko tubaab loolu moo waral tey xale yi di mbëkk dama ne ba suñu mbokk napp ak doon gis seen bopp ci géej xale yi daal di woon gis benn gaal bu ñuy bëgg tey lu ñu leen xaj seen wërsëg ci géej gi moo waral tey xale yi di bëgg gaal yi leneen lu ñu far si rek tamit dañu gis ci assemblée nationale yi bokk bi mooy suñu yàlla may majorité lii di biir suuf ak assainissement dinañ ko liggéey ci incha allah Sénégal tuddoo ci dëkk yaroo ci dëkk dëkk ci dëkk yooyu la ba bés bu ngay sàngoo suuf doo mës a am terrain doo mës a am kër ci luwaas la ngay bokk ngay dëkk wala dëkk sa ay kër yàlla mayee ndax incha allah ma bëgg troisième mandat bu ma jëlee ko def ci suuf parce que troisième mandat day yee fitna Sénégal mbokk yi dama bëgg ngeen déggee ko noonu dimanche. mbokk yi dimanche Macky Sall ak njabootam lenn rek moo leen dese sàcc sàcc bi nag mbokk yi dama ne lii seen warugar yéen na ngeen ko def dam leen ngeen woote carte yi nag ñu ci commission yi na xale yi dem retiré seen carte parce que nag ku bëgg a xeex day am gànnaay ci élection gànnaay mooy carte bu ci des bu dëkkul Grand Dakar am déglu rek am déglu lu mu leen di wax dafa solo dama a wax ci su ngeen jëlee élection yi ngeen di ko fooyee pour bi ne continuer di cher su ngeen jëlee élection bi di ko fooyee góor jigéen dina continuer di bonne Sénégal su ngeen jëlee élection bi di ko fooyee troisième mandat Macky dina ci xuus dina yegg Sénégal kon nag dama ne dimanche ku dëkkul Grand Dakar bu fekkoon Grand Dakar lu ko mbir bi jaral bu woote Grand Dakar da leen mbir bi tamit jaral lu ëpp loolu bu bañ a woote Grand Dakar. Macky Sall nag Macky Sall nag suñu ah, mujjee ak moom ci gàttal ndox am na xanaa leen ko waxee noonu ngeen déggee ko noonu moo tax ma leen mbokk yi ma bànn ci kaw ku mu neex woote dañ ko neex. bu mu neex àndax ku ko neex bu mu neex jàppale ku neex wante képp ku woteel dimanche Macky ak njabootu Macky Sall yaa ngi dooleel góor jigéen Sénégal dama dimanche képp ku fi woteel ak njabootu Macky yaa ngi bëgg a yee parce que yaa ngi gisal Macky Sall ci yoonu troisième dimanche képp ku fi woteel ak njabootu Macky amoo benn yërëmande ci askanu Sénégal surtout bu Cheikh Bara Ndiaye kon nag dama ne mbokk yi gis ngeen benn xob rek moo baax mooy xobu Yewwi Askan Wi ku bokk ci wàllu ak ku bokk ci Yewwi ñëpp ay wote Dakar Yewwi Askan Wi xob boobu rek moo amul poto xob boobu rek moo amul poto mu am ak benn picc bu wert picc bu wert bu dagg bu dagg yi dama ne li di ful li di fay li di gëm Sénégal mooy su ngay duggee ci kër gi ci kër gi da ngay jël xob ko ngeen battal ko Macky Sall mu sàmm sàmm sàmm sàmm parce que nag wolof jaay mel ful la mooy jaay daxaar yebeel nooteel ñàkk gëm yàlla ak jaay doole bu Macky Sall di woote Sénégal dama ne ci yéen rek la des su ngeen bëggee suba mu dàq suñu kër mu dàq kon nag xam ngeen lan mooy seen warugar bi na ngeen ko toppale noonu ndax xool yi ñu nekk Sénégal jëm kanam maa ngi leen di gërëm wax leen ko allo allo allo allo allo allo ngeen may ma nag ci turu intercoalition bi ma gërëm ginnaaw ma nuyoo sant ma gërëm mbokk yi yeewi askan wi ak tamit mbokk wàllu Sénégal ñu ngi leen di bëgg bu baax a